mais eh, dangaa balaa njaay de la balaa njaay ni nga ñibbi yoo fi mu toll nii. du <laughs> ko eh. taal sa añ bi dafa am fu may dem. waaw dinaa dem ci may xaar tuuti rek. déedéet danga mën laaje. waaw mais damaa demoon jëli sa kii gisoo li ma sol. xam nga ne soluma damaa ne ma dem jëli sa dàll yi nga commandé woon. fii ci borom dàll taal sa añ bi ba pare ba ma la gisee nga solo laa xam ne am nga loo naa waaw doo bàyyi ma dem jëli ko doog a taal heure bi demagul fenn yow tamit. ba lan ca nar keroog fii nga bàyyi sama añ bi mu xam. xaaral ma dama la ubbi am na koy sax dinu déranger buñ toogee war a làng de <laughs> sama làng yow xam nga ni soriwul rek. ça va. koy seet. yaay Pape Cheikh. Eh. loo koy doy. dama kaa soxla. bu dee Pape Cheikh ngay seet di. eh xoolal Pape moom waaw kiiw néew fii dafa voyagé ah toog leen seen kër am na jabar noppal leen seen bopp sonn nañ ci seet bi ba fani yi eh! lan la yaay laa soxla Kumba xam nga Kumba kuy Kumba sama xarit benn bakken mi Pape bool biiram Kumba man may ma ma développé Kumba ngay seet waaw bàjjen ngay seet pour expliquer mi ngoog waaye boo ñëwee doo ñëw doo ma wax loolu ana Kumba dafa am doom loolu doom de daal dee lu ba jàmm la ba expliqué ma fi ça na nga def alhamdulilah euh, laa soxla woon Pape ah, ah. comme fekk naa la fi mën naa ne benn la rek. Ah, benn la lépp mën nga ko wax. laa soxla woon mais comme que gis naa yaayam tamit benn la. Mhm. Euh, dama ñëwoon fii nag parce que Pape dañ ko tuddee Trondo. waaw la. <laughs> Eh. neex na de. waaw ku ko tudde ah, benn xarit la bu ñuy wax Kumba. Kumba waaw. Mhm. xale bi mun naa ni Pape Bool moo ko ëmbal te moo ko ëmbal sax. Pape Bool menn bu mbaaya jëkkëru mbaaya moo ëmbal xale bi de. léegi nag ba mhm. xale bi liggéentiwu ko xale bi daal mi ngi ci ay souffrance. si xale bi sonn na fi mu nekk nii. am na doom ngénte la gisuñu ko. ba bu hmm. muy ëmb ak lépp daal toppatoo ko ba ni muy wasinee kenn gisul papoon kenn dégg ko. yow mi li ngay wax leer na la. lu wóor lay wax ni lu wóor lu amul benn sikki sàkk bàjjen yàgg naa la wax ni waaw lii lan la ni ah, juddu xale bi la. Pape la kay Pape Cheikh lañ ko tuddee. rafet na. def na rafet Pape yëg na lii. bañ a yëg. Pape Se Bool moo ko yëg moom mi ko yëg bàyyi ñu ne ko lijjantiwu ko toppatoowu ko te loolu du tey. <laughs> boobu ba léegi dégguñu ko. xamuñu ci lu mu nekk xale bi nekk fale dëkk ba am problème xale bu ndaw boo xamante ne 15 ans kese la am. 15 ans 15 ans. te doom kooku kay moom. yow de lii nga may wax man mënu. kenn ko laal ndax Pape bool mag la te kilifa la. Ah. yow jàng nga xanaa gis nga lii. ah waaw man kay damaa jaaxle rek. damaa jaaxle ndax lu la bett mën la. jël bu fi ki mimal kenn bool nag yow xamu ko li mu capable lii moo ci gën a tuuti kër gu mu dugg defa ñombe yii mooy. ana xale beeg yaayam. <laughs> ñu ngi dëkk maa ngi toog Mbaye. Mm, nekk nga ba suur. nekk naa ba suur alhamdulilah. Pabor démb tooñ nga ma. li nga guddee ñëw ak sama nawle yii ma nekkal moo tax waxumaak ak yow jotewuma yow tooñ nga ma ba ci kanamu yàlla. man duma sa nekkaale duma sa koy ngorool danga ma takk ci farata yàlla ak sunaas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tax na nga dem tukki boobu ba tey bàyyi ma fi maag sama njaboot fan nga ko teg démb soo guddeewul woon. soo sama jëflanteeg yow dina metti de. waaye mbaay. waaye li nga guddee ñëw a tax te waxi guddi baaxul. jaam do mbaay jaam waxoon dimbali ma nga naa maan jaam ak lii ak lii tooñ nga ma ah. ab jaam demam la xam waaye xamul dikkam. sama yoon nekkul ci loolu. mbaay li ngay wax lépp waxi waxi na mel la rek. daga maa maan na namoon rek mbaay ma nam la. waxi di borom kër ak soxnaam la waaw waaw Demba Yacine Thiago Alfi Baba Yacine Thiago Alfi ci barakos bi ci ndar Demba sa taal sa Omar wàlli wi jeeg bu mel ni yow kenn du kam ko bàyyi ginnaaw daga maa namoon mbaay ma namb la mbaay wallaay ñu namante la namante la nag waaw mbaay <laughs> ni ma la namee woon nag cerem tey cere nameew ka ñeex ah man ni ma kaw braay déedéet kay <laughs> maa ngi nii nag marché laa jëm nii ah. damay dem marché tey loo bëgg ma toggal la defar suppu kànja Pape yow tamit nag suppu kànja nag chaque jour nag yow tam nag. na ci yéen am laxas yi am naka daan def damaa namoon sab loxo mbaay <laughs> man sab loxo laa namoon mbaay. waaw ma dem te ñëw. ma amul wala doole tey man maa lay paye man maa lay maa maay dem marché tey jëlal. jëlal wallaay mbaay tey moom marché neex ba dem te ñëw demal te ñëw demal te ñëw mbaay. dana defal jàmm. amiin a a kay mbaay. Hmm, hmm. man mii xaritu xale bi laa xaritu kumba laa sama xaritu benn baqen la. la moom. xawuma Pape Bol fu mu dëkk moo tax ma ñëw fii pour bëgg nga yóbbu ma kañam Pape Bol. mel na ni xam nga ko nag lépp dina leer sa gémmiñ dama koy yóbbu. loolu moom teg ko ci suuf. xam nga tey jii mën naa nekk si dëkk bi naan Pape Bol Pape Bol duñ ko xam mais bu ma nee Pape Say Diallo nitam ma tee indi ma ba ci buntu kër gi ni ma fii mooy kañam Pape Say Diallo ma ñëw fekk la. alhamdulilah ba nga njëkkee fii. yaa ngi dégg yow noo tudd. man Zeyna laa tudd. xam nga lu ma la bëgg a xamalam. loolu teg ko ci suuf ah. kër Pape bu fa sax jéem a xam te bu fa dem ah. ndax àdduna loo gis sutura la te Pape mhm. kilifa la mhm. nit nag day juum lii ba fa muy mujje Pape bool dafa juum dafa yor jabar yor njabootam oh. tey boo demee këram danga ko tas te loolu du li gën du leen arrangé lu mhm. ko arrangé comme ñëw nga ci man dinaa lijjanti problème bi dinaa ko dox dinaa ko wax dinaa ci def lu ma mën Pape Cheikh lu ma mën dina ko ci def te Pape Bol bu yëgee lii bu ma waxee ak moom dina jël responsabilité am. Ah, ñàkk na koo bañ a jël de parce que nii nii nii xale bee ngi sonn. amul dara amul biberon amul couche amul dara xale bee ngi sonn daal. bàjjan lii bu ko bàyyi ko mu dem ca kër ga bàyyi ko mu enforanté ko. yow Collé bàyyi mu dem yàggoon naa la ko wax. fii ne la ëmbal na doomu jàmm bàyyil toujours. bu nit ñëwee nga koy jamb wala ngay xam. taal bi kenn dama gis. bàyyi loolu dafa foor de yow kañ ngay dem ci dëkk ba man kay su ma ko yoroon léegi léegi dem fa baa ma yónnee ko ko ndax sonn na. jox ma sama saak jox ma sama saak wala. beneen solution am na est-ce que déggal nga ma li ma la wax. am benn problème moom kër Pape Bool bu fa dem. baax na dégg nga. dinaa ko lijjanti dinaa la woo. d'accord nga jël sama numéro ma jël sa numéro lu ci war rek nga wax ma ko dinaa ko def bu soobee yàlla. incha allah dégg nga waaw bu ci am dara dara dara lu la naqari. baax na benn la rek. am soo demee. nga yóbbul ko ko lim ci war a def mu def ko ci. inchallah après nga woo ma lu ci war dinaa ko def bu soobee yàlla. dégg nga toogal xaar ma toogal may ma tuuti ma ñëw dégg nga. allo. Mm-hmm. na waar. xaaral ma kii dama bëgg a tegu ci maa ngi ñëw de. waaw. ñu dem. ñu dem fan. bu jugoon jugoon ñu dem bàjjen nee na nga ñëw ñu dem. ñu dem fan ñu dem fii nii. fi mu ma waaw fi mu lay waa nee na nga ñëw ñu kii. daawoon ci sol daal yi daal. jaaxoo ko rek ba ci biti xam nga. got you running naa la. ni def. ah muuraay gi moom macha allah. maa la raw. naka ngelaw leeg sedd bi. waaw nag tedd ngelaw na de. yu yow kay moom <laughs> bis ni moom muraay gi moom bis ni ko tey du dañ. yow de bu nekkee madame Diallo moom moom moom ah. si. sinon ça jaajëf. chéri boy lu bés. ça ndaga sa pag. Ah, baa neexoon na. ngalax bi nag ah. daa lekkoo ngalax. <laughs> soo mel ni ngalax bi da laa kii de. lekk ngalax. ah man de saa de show ngalax la ma yónnee. Hmm. bàyyi seex. ah bon yëpp damay ngalax chaque 18 heures daal ma dóor sama soow kaasu ngalax bu baax. dëgg la sinon naka affaire yi ah, macha allah yow mooma macha allah de cay sama chéri bi. day tooñ sax mooy li ma la waxoon euh, je vu gisante nañu waxtaan nañu te mooy li ma la rek sa avocat bi sol na mbubb bi dox na ko wax na ko tu vois. Hmm. Pape waxtaan nañu il m'a tout raconté et franchement maam ci mbetteel nag parce que daf ma nëpp. daf ma nëbb lu bëri ci waxtaan bi tu ah, di jégaluwaat di jégalu si place di ko jégalul moom parce que tey li mu la def bu ko defoon sama sœur ba keneen it daf may metti mais franchement am na kersa am na rusaange e ngi jégaluwaat mi ngi lay rëjégalu parce que xamuloon cofeelam ak mbëggeelam foofu la toll ci moom su cofeel ki nga am ci moom xamu ko woon da ko réere woon mbir mais nag euh, nee na ma doom nday man ko waaw munoo bu am dara lu la metti mbir bi ni nga ko bëggee na la amee taq rek nga bëgg man ko plus taq plus te taq plus googu moom mooy li ma la xoon tey am yow defe naa Pape Cheikh na wax lu booy man mag laa duma fekk si yàlla naa dee. def li mu li mu wax yëpp. chéri kooku man duma fekk si yàlla naa dee te doxuma si ay caaxaan. man de gëmuma ko. man dama doon duru xool ma ci ko. ba suuf ndax ndax dëgg mais Pape Cheikh du wax dëgg. bi ma xam man du wax dëgg. ah man ko. yaay booy. peut-être yow mën na laa nax mais man mënu maa nax. déglu ma déet li nga ma jot a lépp ak moom la ma wax lépp ah takk dina am su mu ne dina am day am ci li wax. waaw ana ñu ma bàyyi fii Collé Collé du togg de day taañaañal de day taañaañal de yóbbu na gune gi day taañaañal di ko gunge ba yàlla xekk xam Collé daal naa ko seetaan ci nii mu nekkee rek tey moom bu ñu añee yàlla la neex ah Pape Bon nag day def na lu rëy. waaw eh. père yow kañ nga fi. waaye maa jàmm mbaa yaa ngi si jàmm rek. waaye papa man bi nga ma gëjee oo laa gëj nekk si jàmm. Ah. dama lay oo la jot. vous avez éteint daan nga def si mooy yooyu ñuy envoyé xaalis tere yooyu ñuy envoyé xaalis gisatuma dara. Hmm. kër gi fi nekk. di làmb sama poos di joxe sama yaay boo xee mën ko sama papa ma ko jox te yàlla xam na ni xamul fan laa ko jëlee lu ne nag dugg naa ci yaa ngi nii maa ngi nii te bi ngay wax ak man ba léegi cell laa def. boo gisee déggoo ma gisoo ma damaa demoon rek la ji problème yi kumba dafa toll ci weeram ma dem bàyyi fa xaalisub tudd ma ak xarum tudd ma dem jël tur weeg lépp may leen ko ndax kumba daa war dem dëkk ma loolu fu moom xanaa maa ko may lépp waaw nga may ma xaman waaw yow mi lu la dal nga tuddee ma ko nga mu yow mi xanaa da ngaa dof dinaa jël tur bi di nga ray sa bopp royaale ma oh papa may ma tur bi man mën naa ko tuddee samay géer dëkk bi ñàkkuma ko ma ko fi tuddee mu émergement may ma tur bi rek bu ma xañ na mère bi kooku jant bi nëbb na ko ba pare gis nga yaay nu mu mel ci doom man sama yaay laa gën a bëgg sama papa waaye tey laax naa ko jant bi nekkul ci lëndëm nekkul ci guddi kenn xamul ci lu mu nekk te du sip ba àdduna tukki samay mag mënuñoo tax mu sip li ma bëgg na da nga koy def soit da may may tur bi wala nga utal ma lu ma jàpp boo mayee tur bi ma ko patron Ndakaaru. wuy ma dugg ci benn gaam tu man tuddeewu ma la tur mayu ma la tur kon tur fi ne tur wooyee kon mooy sa teraanga. boo ma ko mayee patron Ndakaaru laa koy tuddee. léegi nga xam ne tur woowu teraanga la. am na lu ma la wutal lu ma la dencal pour jàppale la ci sa liggéey bi nga ne. moo ëpp solo yow bul wax dara neel patt ma ni patt ñu jàpp fa nu nekk fa ñu nekkoon boole suñu xel muy benn. ah patt nag bu ñu wéetee waxtaan. patt nag balaa muy am dinaa la wax ñaar waaw moo gën déet te bi ñu xamante ba léegi waaw laay wax nangu daa jël cëru bañ te kër gi nee na waaw kon dama naan waaw mais balaa ma naan waaw nag day fekk nga nekk fii. bopp bu nar a gudd fa nag nopp yi dégg ndigal a ciy sex dinaa la jàppale ci sab liggéey dinaa la jàppale ci sab liggéey am na lu ma la dencal pour yow kooku neel part ma ne part buñ ci jublu doxal ko mu sotte jàmm am déet dégg naa li nga wax papa kon jeex na papa man maa ñëw dem waaw jeex may xéwal mu ma foora jëli na sa xol seet noppi ma noppi rek nu yem nu dóor suñu dil man ak yow ñaanal ma de lépp mën na ci États-Unis laa bëgg a dem papa ni yàlla yàlla baax na ma seeti malaw yàlla naa fa yóbbu sama bopp ba noppi jërëjëf jërëjëf jërëjëf rek laa bëgg nga jël sa téléphone nga wol ma sa nijaay. sama nijaay pour la. dama ko soxla. <laughs> yow lay doy sama nijaay. dama ko soxla en tant que góor ak góor. man du ma woo sama nijaay ci ay caaxaan. ah chérie mooy la ma la rek. man nduruma la caaxaankat daal macha allah tu vois Pape moom may woo nii sax waaye man duma ko jël. damaa bëgg nga wol ma sa ndijaay dama ko soxla franchement soxla naa trop sa ndijaay te wol ma ko mu ñëw ñu toog ñu waxtaan si njëkk teraanga. xam nga déplacé kilifa si yu ñàkk fay dama du dox si yooyu. ah yow sama chéri nga. Ah, baax na yaa wax loolu de. xam naa ni buñ sa jógee daa kontaan. Ah, baax na dinaa ko woo waaye nag na nga ko wax lu am fulla. ak fayda yi. baax na. Ela não cabe. Estava redro. Redro. Não cabe. Dum ba fay kana e urgent. Boo ñëwee léegi dama soxla. Waaw. Ibi e naa de. D'accord. Xeera dron kay. jàmm rek la naa jàmm ok à tout mooy li ma la xool rek léegi sa nijaay bu ñëwee. nga génn abal ñu kër gi. waaw génn abaleen waaw nga génn abal ñu kër gi parce que waxtaanu góor la ak waxtaanu kilifa. Hmm. dama lay ñaan rek bu doon fekkante ci kër gi. kër la fa dëgg nekk nii.

mais yow lan lan loo may laaj xaalis. waaw bàjjam xaalis bi mu la jox laa la. <laughs> di koo ko denc loo ci bëgg. wuy ma yow dofoo gën jàpp la man dofuma gën jàpp ma. comprendre nga dafa am wax yoo xamante ni bu wax ja bu bu dofee nopp yu koy dégg war a wér te yi ay noppi waxal rek ma dégg ma ma expliqué yooyu nga fi indi ak lekk nag xiif nag yooyu dara yëpp du si dëgg man booy wax say bët laay xool ak say xef li ngay wax dëgg du dëgg waaw déglu ma rek yow jarul nga may napp du man ragalu ma dara kumba mi ngay wax nee na ma magam yeeg nijaayam ñëpp nga Europe ñëpp nga États-Unis comprendre nga dañ koo mere woon. ndax coono wax ji bari ji ah, man yi ah, ah, intéressé wu ma arrangé wu ma daal naa la ko jox ñu dem. waaw yow koo yàpp. man ngay jox 10 man Collé ci information yóbbu la kër Baboy. wala dégg nga xam ma xam mën naa ko def xam kër Pape Boy. nga xam ne autorité ak ku siiw duñ benn. waaw demal demal demal demal ah. eh. ma woo demal sa dem rek bul ma woo. kay ma nekk fa nekk ma ma ñëw. ñëwaay doo ñëw. Hmm. doxal li ngay wax de man yooyu newu ma ci. mais da ngay tey ak lu bu fekkee affaire da nga yow da nga mel doon naan te doo ah. tey lan la. Ah, donc changé de di wax di ñambax ñambaxi naa la ko jox. ba baax na baax na garaaw. Ah, eh, yox la ñu dem. Sénégal de ay dóor rek de yow de ay bàcc ngay def yaa capable.